asalaamaaleykum mbokk yi ñu topp ci BNTV Sénégal di seen seen YouTube bi ngeen tàmm di ci teewlu suñu programme euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan suñu nuyoo ak suñu ziar fekk leen ci jàmm euh, tey nag seen émission fajtal tey ñu ngi déplacé waat daal di ñëw fii ci euh, guy gi Diacksao 2 fekk si fii sëriñ bu mag sëriñ boo xam te ni nee naa ko ci li muy wax da koy teg ci lu leer lépp rek ci mbiru suñu borom la koy teg moom muy liggéey ci wàllu alxuraan karim waaye nag dinañ ko. Euh, dalal nag léegi rek incha allah nag euh, muy euh, Serigne Mbaye Sall jëwriñ tey nag ñu war a waxtaan ak moom tey ci ñaari xeet waaye nag ba ñett ba ñeent waaye nag dinañ waxtaan ak moom rek ci wàllum ndoxum siti waaye tamit waxtaan ak moom ci wàllu tension waxtaan ak moom ci wàllu diabète ba ci hémorroïde su ko defee rek yéen ñi am tawat bi nga xam te ne nii nekk na ci yéen te xamu leen ko mbaa ngeen xam ko muy hémorroïde wala tension wala diabète mbaa sax jëm ci. bokk wàllu siti euh, kon xam leen na tey Serigne Mbaye Sall jëwriñ danañ ci indil kon nag ay leeral lépp rek ci mën a ànd ak ñun faj ñu ci faj mu mucc ayib euh, te gaaw loolu nag euh, ci kattanu suñ borom acca mi ngi noonu ndax moom ci moom lag lay déggee lu bëri nag muy wax nag incha allah kon nag képp kuy faj rek war nga cee jiital suñ borom mu jiital suñ borom kon dañu daal dugg ci biir rek ànd ak équipe bu BNTV Sénégal seen émission fajtal ñu daal di dugg rek daal di xool Serigne bay Sall jëwriñ rek waxtaan ak moom tey ci lan lañu indil tey ci wàllu fajtal bismillah ni ma leen ko waxee rek eh, sëriñ Mbaye Sall Dior ñu ngi lay nuyu di la ziar eh, sëñ bi di bàyyi nga nuyu waa site bi nag di BNTV Sénégal seen émission fàccal ñu ñëwati nag rek daal lay fekk si fii ci eh, Touba Diacksado ci guy gi war a waxtaan yow ci nag liggéey bi nga xam te yaa ngi koy liggéey di ci dimbale askan wi lépp rek di ci ni waxee sànq rek di ci jiital suñu borom di ci mujjal suñu borom ndax ci alxuraan karim lañ nga gis boog li ngay fajee mm. sëñ Mbaye Sall ñu bàyyi la nga daal di nuyu mbokk yi seetaan BNTV Sénégal seen émission fàccal aouzu billahi kalimatillahi taamatillahi min sëri ma xalaqa wa min sëri jinni wal ins wal saytaane wal xayni wal fammi sëñ Massamba ñu ngi lay delloo nuyoo di ziar bu baax di nuyu mbokki taalibe ak mbokki jullit yëpp rek Sénégal googu këpp ba bitim réew fépp ñu ngi tuub te jéego nag ci kàddu yi ndax wax moom daana li ñu wax rek mane wuñ ko hmm. jëf lañ gën a mën a wax waaye lii dafa mënu ñàkk waaw laabere nit macha allah xam na rek dañ koy daal di gaawant rek ndax waxtu yi dafa daal di bëri mm-hmm. dafa bëriwul moo tax nekk nii rek dañ koy def comme naa ñaari parti su ko defee rek eh, dellusiwaat fi incha allah ñu doon a waxtaanee eh, Imorit ak eh, ndoxu siti mm-hmm. si la ñu a waxtaan baax a baax nga ci yëngu-yëngu bu am solo mm-hmm. di ci faj-fajin bu mucc ayib ta askan wi yaakaar naa ku ne ndoxu siti rek askan wi moom daan nay lëmbee réew mi moom ndoxu siti waaye tamit nag ku ne Imorit tamit fu ne rek ngay dégg ñu koy jàmbat nga xam naa ne dinañu Euh, bàyyi xel bu baax a baax nag mm. ci seen bi nag nga xam képp ku ci bëgg tamit rek euh, ci yeneen leer nag da ngay woote ci numéro yooyu su ko defee dinga nga jokkoo ak Serigne Mbaye Sall jëwriñ euh, mu wax ak yow kon ci wàllum hémorroïde wala ci ndoxu siti kon ñu njëkk a ñëw ci wàllu hémorroïde hémorroïde da nga koy faj waaw ma sëñ jërëjëf hémorroïde dañ koy faj dañ koy traité mm. ndax damay wax saa su nekk feebar yooyu du benn ngay naan wala ñaari fan rek mu wér dañ koy traité ñetti juróom-ñaar lañ koy traité muy vingt et un jours ñetti juróom-ñaar trois étapes lañ koy def muy mu ci la ci lay daje ba set wecc imrine hmm. nag ñu bari am nañ ko te xamuñu ko hmm. euh, saa su ne wax imri bu day ñëw ci yow hmm. pour mandarga yi mu la war a jox pour nga xam ne yaa ngi am imri première fois foo toogee géexatoo rek doo mënatoo géex rek xamal ni euh, bu yàggee da nga am ballonnement ndax air boobu waroon génn ci biir pimo yi war ko pompe mu génn bu pimo moo dégg ñaa lekk pat boo lekkee pat day tëdd ci pimo yi boo tëddee moom day diis dootu mën a. kon kon daal su ma bëggee dégg daal maag ñoom Pam Dim wala Serigne Gueye ba ci Bambey yaa ngi joxe si ñi nga xam te ne euh, ne yaa hmm. yi nag buñ a géex ndax air bi dugg ci biir nit mooy génn. Hmm. bu fekk géexatoo xam mi ngi mi ngi yaa ngi commencé am ballonnement boo amee dem ba funki sa biir ñu naan ballonnement li tubaab hmm. mooy dem mujj mu doon doon benn bëcc commencé nekk hémorroïde commencé di màgg di màgg mu yàgg doon benn sidi di màgg di génn di wàcc ci sa suuf bi dem ba génn bu génnee nag day màgg di màgg di màgg ba màggee ba toj nag du hmm. docteur du sëriñ bu ko mën a faj ndax deret ji day lu duggati ci deret ji day day wàcc directement loolu yéeme di sëñ Baye Sall waaw noonu lay demee kooku de kon xanaa kon uh, képp kuy am yooyu signe la rek mën ngaa gaaw daal di woote contact kon uh, Serigne Baye Sall jëriñ su ko defee ñu daal di ciy def ay saafara mm. kooku ndax uh, paj mi ni nga ko waxee dana gaaw traitement yi dina yàgg wala du jël temps waaw sans départ bi ci ëpp daal vingt et un jours mm. bu dee dafa génn mm. faaw mu mu diire faaw mu diire faaw ñu def ñetti juróom-ñaar mooy vingt waaye bu génnee mën nañ koo faj ba mu dellu waaw mën ko faj bu dee tojogul mais ko faj toj mënuñ ko faj bu xasee toj ko fa wala ñu dagg ko mëntuñ ko faj. Hmm. waaw mais fekk tojagul. Hmm. mën ko mais nag bi génnagul. Hmm. boobu moo gën a neex a faj di génn bu pare. waaw di génnagul moom mën ngaa na une semaine rek mën nga cee wér. rek boo jëlee garab yi traitement bi une semaine rek war nga cee mën nga cee wér. mën na ko dindi mais bu dee xasee génn faaw mu diire ba ay vingt et un jours ñetti juróom-ñaar. ndax mu xam ne juróom-ñaar dafa bokk ci alxuraan. man nag li ma am jàngat eh, ci ci ci mbir mi mooy eh, damay dégg ñaare ci eh, ñi naan dañuy faj fajum olof. Mm-hmm. wala bokk jëm ci tradipraticien mm-hmm. li ñuy faral di wax dañu mel ni kuy bàkku. waaw ndax dama koy dégg léeg-léeg ci ñu naan ñetti fan laay am ak yow rek nga daal di tàggoo jàngoro bi mu mel ni luy xaw a gaaw trop. Mm-hmm. te yàlla yaakaar naa joxul kenn ay mbiram mu teel ko boppam. <laughs> mu mel ni maa dégg yow wax nga dinañ ko. faj faw ñuy jël ko def fa traitement. Mm. nekkul luy gaaw ba pare ne mm. vingt et un jours mel ni kon euh, traitement boobu euh, jaadu mm. waaw xam nga maanaam ñenn ñi moom dañ koy euh, wutee xaalis waaye xamuñu sax boo leen laajoo doy émeri dëgg la sax ñu bare ñu faj xamuñu émeri. te émeri ni fajee reen kese kese doo dem émeri day ànd ànd ak baatin. Mm-hmm. alxuraan baatin mooy loxo bi ngay bindee nii. dafa war a am ijaaba loolu nag dafa am fooy toll suñu borom jaamu suñu borom. tarbee suñu borom turu yàlla ba am ko nga xam ne loo bindati suñu borom da koy nangu loolu la cay bokk kon daal ku ñëw fii te am eh, feebar boobu di hémorroïde yaakaar naa suñu borom mën naa def muy ra waaw in ci kàttan suñu borom duñ hmm. la may lépp nga ne lépp jël hmm. ndax yàlla mën na ñoo xamal ni mën nañ ko faj waaye duñ leen dañ koy dañ la koy faj dañ naan ci kàttan yàlla yàlla la ñuy jiite bis bu nekk hmm. ndax ci commencé ci yàlla lañ commencé ci yàlla la ñu yem ci moom lañu jógee ci suñ lépp ci suñu borom lañ ko tënk waaw waaye incha allah bu sa bu naree faju sax da nga fi ñëw waaye bu narul faju sax ñaareel boo waajom pour bëgg fi ñëw sax doo fi mën a dootu mën a ñëw waaw kon kon kon ku bëgg a ñëw fii ci uh, guy gi Diaksa 2 war a seet Serigne Mbaye Sall jawriñ uh, xanaa rek nan lay def ngir ñëw fii comme ay tegtal jógee wàllu côté Dakar Dakar wala boog mu jógee fële ci région yi war a ñëw fii ci uh, guy gi ndax mi ngi nekkee booru caare yi waaw mi ngi ci police bu bees bi rek ci guy gi ci pont bi boo wàccee pont ci ci ci police bu bees bi police si kàmbaaw bu bees bi mooy fi péage bi jaar waaw péage bi jaar nga xam boo yëgee pont boo jógee jàmm gën da ngay wàcce pont bi moo jëmee mel lu jëm caaro yi da ngay wàcc port ba wàcc port ba agsi nga ci guy gi foofu foofu ci laajte euh, mbay sàll ndongale la ko bu dee caaro yi nga jógee hmm. maanaam ay pikinu yooyu nga jóg nga jaare ko côté hmm. boo ñëwee ci guy gi rek wàccal foofu rek boo jógee ci réseau yi boo jógee ñëwee jàmm gan hmm. wàccal foofu ni caaro yi laaj guy gi boo jëlee kalandoo yi jëm uh, guy gi yi jëm caaro yi daañu la wàcc ci guy gi super yi dañ fi jaar soixante dix huit bi dem ba boo ko jëlee guy gi laay wàcce a boo jógee liberté la fa wàcc boo jógee jàmm gan dana wàcce fii yomb naa ñëw daal kon numéro téléphone yi yaakaar naa mi ngi noonu suuf xanaa da nga koy waxaat rek su ko defee eh, sama classe gi mënul lire mel ni eh, Pape di ma ca ceeñ wala ba eh, yi mu nekk fële ca parcelle mën a jël numéro yi ñëw seeti Serigne Mbaye Sall jëriñ yan numéro lañ mën a jaar gi ñëw numéro yi boo jëlee 77 420 52 03 77 420 52 03 wala nga jël 76 527 99 95 76 527 99 95 wala jël 78 77 032 72 88 ñetti numéro yoy bo ci woté des fois dañu nek Touba nak dafa am fan yo xam ne mu ngi nek Touba ndax dañ fay liggéey fofu dañ fay liggéey kër gu mag mi ngi fofu foofu bu dé Touba la bo woté dañ la wax ñu ngi Touba wala ñu ngi jàmm gën waaw acca kon mi ngi noonu yaakaar naa kon gars yi gaaw gaaw eh, daal jël oto mbaa sax ñu jël eh, terre bi su ko defee rek ñëw seet Serigne Mbaye Sall jëwriñ eh, ci wàllu émorite su ko defee rek mu fajal leen ko ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mun nga bu fekkee da nga jógee boori jàmm gën nag mën nga dugg kon ci calando yi jëm caaro yi su ko defee rek ne ko jag saaw laa jëm ci guy gi mhm. di boo yegee pont autoroute à péage bi rek ba wàcc juste yaa ngi ci guy gi mhm. boo laajtee Serigne Mbaye Sall jëwriñ danañ la joxoon kër gi mhm. su ko defee nga daal di ñëw wax say jafe ja ñu mën la ko fajal ci bu dee teer ba nga wàcc ñëwal Caaroy ci euh, côté dispensaire bi euh, boo boo nee dispensaire wala mairie Caaroy nga ne kalandoo mm. yi jëm euh, jàmm gën laa jëm laay dugg ñoon na kalandoo nga dugg ci kalandoo yi ne ci guy gi laay wàcc mu wàcc la ci guy gi boo ne Serigne Mbaye Sall jëwriñ mu daal ñu daal ne la kër gaa nga ne le kon waxtaan nañ ci wàllu hémorroïde yow mi boobu gaawal gaaw woote ci numéro yi rek daal di jokkoo ak Serigne Mbaye Sall jëwriñ su ko defee boo ñëwee suñ borom def ñu saafara say mbir mm. atia mi ngi noonu kon nag ñu war a jàllaat ci beneen rek muy wàllum ndoxu siti ndoxu siti nag muy lëmbi réew mi mm-hmm. euh, sonal askan wi nag bu baax a baax a baax mm-hmm. ba ko ci gis rek buy dox sax da ngay foog ne euh, maanaam euh, du egg fa jëm mm-hmm. lépp rek ndoxum siti bokk na ci leen ni gàllankoor ci wàllu dem beeg dikk bi waaye tamit ci liggéey bi ba ci lekk bi ba ci tée ay ay ndab sax dañuy am jafe-jafe ngir téye ko ndax ndoxu siti bi nekk seen yaram ndoxu siti nan ngay def ak moom ndoxum siti sëñ Bassam nañ def moom ndoxum siti dañ koy traité moo it mm. dañ koy traité alxuraan ak euh, euh, ay reen lañ koy boole reen yi nag dama ci wax nit ñi bis bu nekk ndax bari ñuy faj dañuy dem rek jënd reen reen bu nekk dafa am noo koy jëndee hmm. am na ci reen yoo xam ñun saalum lañ ko wute yii ñu ko wute yeneen dëkk am na yoo xam ne da waaj ba jekk dem da ngay dem ci bi rek ne ko jaay ma reenu nangam rek mu jaay ci marché yoo xam da ngay waaj ba jekk dooga hmm. dooga dem ci euh, garab am looy wax jënde ko yii da ngay taxaw ci côté ndeyjoor beeg penku beeg soowu beeg saalum bi noddu liqaam doo ko doo ko doo ko dagg maanaam bari na daal réel bu nekk lañ ko wute yooyu nag boo ko dajalee nag mm. boo ñëwee loo ci faj suñ borom boole ko alxuraan suñ borom dana dana faj mais ñuy faj ndoxum siti yëpp dañuy dem PSV rek mm. ñu commencé joxe amul alxuraan amul dara kooku du mën a dem ndoxum siti nag xam naa danga ma laaj. Euh, kay parce que loolu la foofu laa bëgg a ñëw ah. euh, ci li nga wax léegi rek euh, ndax foogoon naa ni léeg-léeg yenn garab yi dañ la wax rek nga dem ci kiy jaay reenu ngeer wala reen sulukum hmm. ne ko jaay ma reen yi faj ndoxum sit rek daal hmm. boole daal di naan mais mel ni kon mi wax ni rek faaw nga jaar ci ñu mel ni Serigne Mbaye Sall jëwriñ mm. soo bëggee faj sa ndox siti mm-hmm. su ko defee ñoom ñu mën la cee defal ay tegtal yu leer mm-hmm. yu wóor yu am solo su ko defee rek suñ borom mën naa jàppandal lépp daal di saafarawu waaye ndoxum siti ku ko am dëgg-dëgg moom it yan signe lay def ci moom ba mu xam ne lii ndoxu siti la waaw ndoxum siti première fois mm. day tàngal sa yaram mm. sa yaram day tàng boo xoolee ñaara boo tege sa tànk su day mel na bu yàggatu day mel na xalu sawara nga ko teg boo duggee oto la nga say tànk boo àggee day sadd loolu ñuy wax sadd day neew daal waaw mooy neew yi la nit ñi gën a xam mais sadd ak neew yi bokkuñu dañoo am dañoo am kii hmm. sadd day def day yéeg léegi wàccaat hmm. mooy sadd hmm. boo ko def gisee rek sa tànk yokk sadd xamal ni eh, ndoxum siite ngi ci yow sa yaram bu dee tàng xamal ni ndoxum siite ngi ci yow boo dee tur ndox mu bareet xamal ni ndoxum siite mi ngi ci yow ndox ndoxum siite suñ borom ndoxum moo ñaal doomu aadama ndax eh, day dee rek la rek mais moo yaram ñoo ànd ndoxum siite tension ak sukkar yi ñëpp suñu borom la ko moo ñaanal ci yaram ñu naan day dee rek la nag bu dee rek la xamal ne signe yooyu boo gisee rek xamal ne gaaw lem nga faj bi ndax bu dee ba sëxañ ci yow hmm. mooy dem ba indi kuroba kuli hmm. kuli nag bala ma ko def day day génn sa yaram nga koy wokk muy fay picc di toj ndox hmm. boobu moom yàgg na ci yow boobu boobu baaxul boobu bu yàggee mooy doon kuli kuli nag kooku moom kenn ko faj wala mm. xëy asubilaay bu mm. sëriñ bi keneen ko ko mën a faj bu ko ak kuli kon daal boo amee si yooyu sëriñ Mbaye Sall jëwriñ wax rek war ngaa gaaw daw euh, woote ci numéro boobu rek su ko defee ba agsi sëriñ Mbaye Sall jëwriñ mën laa dimbale euh, saafaral la sa jafe ci wàllu euh, ndoxum siti boobu nga xam te ni nag bala mu egg foofu nag ñu naan dafa jéggi dayo war ngaa gaaw kon daal namm say tànk rek ñëw fii ci guy gi Diacksal 2 mm-hmm. euh, fekk si fii Serigne Mbaye Sall jëwri rek bu ko defee euh, suñ borom dina ko dimbale kon euh, ci kàttanam mbaaxam mu faj say say jafe-jafe mm-hmm. ci lu gaaw mm-hmm. Serigne bay kon xanaa rek ba tey rek ñu ñëwaat ci ndoxu siti ndoxu siti ndax dina tere am doom jigéen wala bokk damay dégg ñu naan day néewal kàttanu borom këram yi seel ba nga xam te ni ngir ñu am sax tout tànk day jafe waaw ndoxum siti dana ñëw ñaar yëpp dana tey jigéen ba du am doom ndax ndoxum góor ndox ndox ndoxu borom këram bu duggee ci biir hmm. da koy lakk hmm. da koy lakk ndax tàngoor bi ngi se ni mu tàngas tàng ni mu tàngas tàng yooyu hmm. noonu lay tàngale ci biir bassin bi nga xam ne moom moo war a fi la doom ji war a euh, posé lu fa dugg da koy lakk mu génnaat ko da koy day primé da koy primé da koy lakk noonu la def jigéen waaw bu dee góor it dana wàññi kàttanam bu mu wàññu kàttanam it dana ndoxam ndoxam ci boppam da koy lakk ba nga xëy ndox mi day day day day primé day woyof dootu dootu dootu mën a euh, am doom hmm. dootu mën a dana am ndox dana mën a sëy euh, dana am kàttan yooyu mën na ko bàyyi waaye mën a lakk ndoxam ba ndox moomu du mën a am doom hmm. wa ilaa mu wàññi kàttanam ba dootu day néew doole daal ci gàttal am lu ñu mën a ñu wax ci télé ak lu ñu mënta wax ci télé hmm, waaw dana wàññi góor des fois mu dem ba téye la sax waaw ba téye la sax dootoo nekk góor est que waaw yëpp da koy def ndeysaan macha allah mi ngi noonu kon nag ku ko am rek daal daal gaaw ñëw nag fii seet si Serigne Mbaye Sall jëwriñ mm. ci guy gi jag saado rek ni ma ko waxee sànq kon ngay jóge jàmm gën da daal di jël kon calendrier yooyu nag taxaw ca jàmm gën ci arrêt ba mm. wala ne caaro yi laa jëm rek boo yëgee caaro yi ñu ne la yéegal nga yëg nag daal ne maa ngi wàcc ci guy gi mm. euh, bu ko defee rek daan la wàcc ci guy gi jag saado boo yëgee pont autoroute à péage bi ba wàcc rek juste yaa ngi ci rond point bi ci guy gi euh, boo laajtee Serigne Mbaye Sall jëwriñ daan la joxoon kër gi nga ñëw wax sa tawat mu daal la koy fajal ci kat nu yàlla nga baa xam waaye tamit boo jegee caaro yi te war a jëm nag eh, fii ci kër Mbaye Serigne Mbaye Sall jëwriñ eh, dugal ci kalandoo yi nga xam te ni ñu ngi jëm jàmm gën rek nga leen ci guy gi laa jëm ñoom itam la wàcce fii ci eh, guy gi nga laajte Serigne Mbaye Sall jëwriñ bu ko defee boo ñëwee wax sa saafara daan ko mën a faj ni mu gën gaawee kon Serigne bay Sall ñu bàyyi nga daal di tàggoo rek wala bokk ilaa euh, ñu dem xool publicité kon daal di ñëwaat ci wàllum tension ak diabète mm-hmm. kon ñu xool publicité rek ñëwaat léegi-léegi incha allah ci suñu deuxième part ak Serigne Mbaye Sall jëwriñ muy wàllum euh, tension ak diabète léegi-léegi mm-hmm. ñu dem kon ñëwaat Samba mbokk yi salaamaaleykum euh, seen émission li ci sama gox dina euh, dinañ ci ñëw seen i gox euh, képp ku ci am jafe-jafe rek ci say gox jàppal ne euh, équipe bu sama gox ànd ak yéen ci seen i jafe-jafe yi nekk seen i gox wan ko suñu kilifa yi ngànk réew mi wala bokk ñi ngànk kon suñuy gox su ko defee rek ñu mën see def ay saafara te jàppale ne kon képp ku ci am say jafe rek ci sa gox ñu ñëw fa def yow émission bi ñu wax seen i jafe-jafe su ko kilifa yi defaree daan fa dellusiwaat wanewaat ko wan ko askan wi wane na kilifa yi Euh, digge bi ñu amoon ak askan wi euh, ñu ngi ciy xar seen tànk tubay kon émission li ci sama gox fépp fu waay nekk ci Sénégal rek te bëgg ñu ñëw wane ànd ak yow kon ci say jafe-jafe wan ko kilifa yi rek da nga ñuy woo ci numéro yi affiché su ko defee rek daan ko jël euh, ñëw fekk si la si sa gox ànd ak yow ci jafe-jafe yi nga am si sa biir gox émission li ci sama gox jafe-jafe askan wi yëpp la ñuy wane